ginnaaw nuyoo bi tey njàngat mi dañ leen di siyaar ba pare bég ci yéen kontaan ci yéen bu baax a baax doore ko tàggatu gi nga xam ni ñancoo def na ko fële nga xam ne mooy mi nik gone gi ni ma ko defee ñetti fan yi noonu la tollantiwaat ci mbaxal moo xam ni sorewut ak mbaxalum xeer ndax match bee nga xam ni moom lañ dëgmal seen digganteeg Paris Saint-Germain loolee gone gi bëgg na caa am ab taxawaay bu fekkentee ni coach bi may na ko waaye li leer ba leer bu fekkentee ni dana am loolee ca ñaareelu wërngal ba lay doon maanaam deuxième mi-temps ba la loolee di mën a sotti ndax gone gi tànk yi daanaka ab raj-rajloo ñetti yoon la ko defagul fekk Barcelone di raj-rajoo ak Manchester United ci match boo xam ni match si guddi ajjuma la maanaam bu subaak jàmm ci incha allahu lay am ñi ànd ak Lewandowski war fa am taxawaay boo xam ni bu am solo la match boobee ma ngay am fële nga xam ne mooy Old Trafford Old Trafford euh, di li nga xam ne mooy stade boobe nga xam ni Manchester United fa la dalale équipe bi nga xam ni moo nekk Barcelone mu nar a nekk match boo xam ni euh, bu métti match bi moom méttiwul woon ci diggante Sénégal ak Mozambique Sénégal da leen a tëj ci ñetti bal ci dara yoo xam ni biti yi comme taw Sénégal jërëgul ñu yuuxoo sant pour cent ndax lii ab qualifié boo xam ni euh, ca première ca ñaareelu wërngal ba la maanaam nanu def xool ba xam gone yi lu ñuy indi waaye ñu ñaanal leen li ci kanam lépp mu doon ay kub ak jàmm.